eh waaye ndaw sàmm. lii la nga jur ko. kon yow eh yow pël la def nii. sama ndox mooy xiñaan rek. lii daa mel ne da ngaa gaam de. non non non sama noppay xase nag pël. da ngaa amee borom waaw ah. da ngaa amee borom naa def ci loolu. ziar naa la. kon na ma po xam nga ñëw ba léegi gisuma la. maa ngi nii. daa ngi fekk ma fii kër Balla Gaye ñuy waaye suñu soxor. yaa ma bàyyi. non yàlla te su ma bàyyi bu ma jëm yaay sama séer. da ngaa am ay xarit. non non non man yaay sama séer du ma la mos a bàyyi. xam naa lépp lu mu demee mais loolu yëpp garaawul. non loolu mooy xam naa yëpp mu day bàyyi. garaawul ci loolu ma ne ay gars la. Ah, mais da ngaa leer leeru États-Unis nga day bàyyi woon. non bàyyi li nga bàyyi waaw ñu lay bàyyi fa lan pël loolu bàyyi fa lan dara jomb ni pël. waaye namm naa ci loolu. waaye dafa mel ni yaa téye réew mi nag. non non déet ah pël loolu rëy na de man réew Macky Sall mii nga xam ne yaa ko téye ngay téewu may réew. Eh, mooy borom réew mi. liir naka sa voyage. alhamdulilah kon maa sant yàlla baax a baax. ñibbisi nga si jàmm. waaw dem naa ci fekk fa jàmm bàyyi fa jàmm ñëwaat ci jàmm fekk fi jàmm. macha allah. nuyu gépp pël pël man lu ma doon def lu baax pël war naa ko yow. dara am lu tax. Mhm. man damaa dem Amérique gépp bëgg ñëpp bëgg liiru liiru bi tàggat naa sama papa ji père Babou. papaay Balla Gaye ak mère Assa Faye xale yi ñëpp maa leen di gërëm di leen sant ñoom ñoo ma dalaloon di nuyu Baye Fall bu mag ba ca 116 muy Mafal watkat bu mag ba ayib bu Mafal kenn du moom ak sama rakk ji Afia ñoom Mor Ndiaye Coxo Coxo Diagne Coxo Diagne xam nga ko xam naa yee cox sama gars la di nuyu directeur moo Ndiaye jëkkëru mat leen directeur moo Ndiaye jëkkëru mat leen di ko ko di nuyu waa Amérique gépp di nuyu waa consulat bi consulat bi ca bopp dañ a bëgg ak penn gisee sama bu ñaawul bi doomu nday nee na taal ak Margot ñoom ñëpp maa ngi di leen ziar di leen gërëm di leen sant. macha allah a waa yàlla loolu la yàlla def. toog sa eh, du nuyu Las Vegas. moo géet moo géet euh, mm-hmm. fi ñëwaat fi ren. yàlla nañ balaa déwén nag voilà ah ay eh, mbay jor ak jor ko sàmm nga ay eh, pël pël pël am na lu sa yaram di laaj te balaa déwén yàlla nga ko am hmm? doon man sax yàlla nga xañ na ci euh, ñu ngi waajalaat safar bi comme daaw waaw nag yi bëri nañ tubaarkalla masala kaar kaar euh, lan nga ñu mën a wax ci safaru sëñ Touba nga xamante yoonu sëriñ Touba amul tànk ginnaaw avancé rek avancé rek Balla Gaye la Balla Gaye tubaarkaal soo ko fekkee fi xam nga du fekk du Balla Gaye mi ngay fekk ci arène bi nga gis tey xam nga ne ça fait deux loolu yàlla Balla Gaye taalibe la man maa yor Balla Gaye maa nekk xam li nekk ci xolam Serigne Touba rek lay nooyee Serigne Touba rek ku xon lu mu yor nga nax ko ci Serigne Touba yaa ko moom at kan Serigne Saliou Mbacké laa ilaaha illa at kan Serigne Bassirou Baara waaye Serigne Bassirou Baara yàlla na xippee àjjana yàlla na yàlla tas ay leeram Serigne Bassirou Baara rek ndeysaan taalibe la daal tey jii nga ñëw fekk fi nag yi xam nga nag yi ñu fekkoon daaw at léegi te ren xam nga tey la gën a yokk te des na am na yu ñëw te dégg naa jeexagul jeexagul nag yaa ngi ñëw nag yaa nag <laughs> ah, na ne jaaru catu la pël ah <laughs> wax yoo xam ne ñaan yàlla mu yokk yu xam nga ne sama làmmiñ mënut ah da déet dara wóoruma dara wóoruma ci de moo ne ñaari nag lay rey daal pël yàlla na yàlla dafa jàmm ndax yow ku baax la xale bu yaru nga nangoo liggéey te liggéey nga xam am nga fulla am nga fayda koo gis nag ndeysaan muy ree nga yaakaar ne ay pël <laughs> ay soo ci moom xam ak am fulla te am fayda borom la seen bi nu mu sax Bawol TV Bawol TV le pël teg eh dem seeraani Bawol TV ndax at kan at pël. ñu dem ci sàcc bi. waaw bi de. waaw gis nga ko de sàcc bi de nga ko fu nekk nag. ah maa ngi damaa saalitoon ba pare damaa saalitoon pël. <laughs> daa métti di pël du neexul ci xol pël. barke Serigne Salim Mbacke Pël neexul lan waxante dëgg fi sàcc bi xam naa nag ku ma xam la Pël ku ma xam la waaye yàlla na sama àq dal ku ma xam la lu ma nar a dal lu nar a dal sama njaboot rek yàlla na ko dal waaye nag jooyatuma sàcc xoolal pour sama lii lan la Ospo Pro kii nu mu tudd. Ospo Max Max kili Max Max moo gét moo fi jaar moo ma woo ne kar borom laa bee gaaf Ospo moo jaar fii ba pare ma xamal la may affaire vraiment def ni nga def. man ak yow bokkuñu kii nu mu tudd mm, kii nu mu tudd nu mu tudd Pël mm, kii laa jóg xaar sama goro moom it woon na ko samedi maa ngi xaar sama sëriñ bi suñ mënu seen borom tawfeex la bokk te xam ne dama woon monsieur dina ñëw a ñëw. ci sàcc ah waaw waaw waaw waaw maay Sénégal. loolu yàllaa ko def. sàcc bi ne bu tuddee ba guddi. fi mu ne nii sàcc ba kay moom fi mu ne kon nag ma xam ne taalagul portable nag ba léegi. taalagu ko de taalagu ko te ndax wax nan ma ko. taalagu ko te bis bu taalee mooy jàpp na ma. bu koy taal ñu koy jël. lool loolu la xam moo tax taalagu. ay fon ngeen sàccatu. déedéet. gisoo sama sama boss xam naa Gambie lañ ko yóbbu jaay ko dé waaw loolu laa dégg pël ñu ne dañuy jële fii léegi téléphone di ko yóbbu Gambie dëgg la pël ah, waaw waa Gambie ñoom mënuñu see dimbali ñuy def concurrence ak ñoom ñuy kii ñuy weccoo link link ak Sénégal am ñu sàcc fi yóbbu woon jàpp ah, ah bala ngay dégg borom bis bi kii mooy taalibe Serigne Touba taalibe Serigne Bassirou Ba pël ah taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall bi boroom safar gaa ngi di waajal màggal gi tamit nee naa la yoonu Serigne Touba amul tànku ginnaaw ci avancé rek yàlla na ko yàlla defal jàmm te yàlla mosul ko cat at làmmi pël nañu ko ñaanal rek nañu ko ñaanal pël ndax lu tax ñu war koo ñaanal ball ku xam xamoo xale mi soo ko fekkee fii nga fekk ko ci aram bi xam ne safin la taalibi Sëriñ Tuuba la yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye pël yooyu yàlla yàlla defal jàmm borom Bawol TV di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp xoolal di nuyu sama benn waay hmm? bu nekk hmm, nu mu tudd bari hmm? wakaam bari immobilier dafa ma bëgg léeg-léeg dafa may woo foofu jox ma appartement dama kaay noppalu day bëri ci immobilier ca wakam bi nuyu sëñ si dem sëñ Babacar sëñ Samadou Fall maa ngi nuyu ñëpp ak gasam waaw ak eh, sëñ Modou Faye sëñ Modou Faye sama sëriñ sama xarit bu baax la sama sëriñ sama xarit Asrif Tambel li nuyu ñëpp ah pël yàlla na yàlla defal pël ñun nit nit ñi lan ndax lii rek wane na ko pël pël pël ñun nit nit ñi lan lii wane na ko pël bi ma sàcc ñëpp moo di nuyu sama yaay jaga gas sa a ak ak kii nu mu tudd sama xarit ba sama jigéen ba ah euh, kii di nuyu waa Amérique yëpp Angleterre France Suisse nuyu Sarr Sarr bu sëñ Mansour maa ngi ku ma mboor ku ma mboor ku ma mboor ku ma ku ma mboor mu wuli woon na ma di yaay gaas maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn kiwal gisee bawal bawal bawal bawal waaw ah, bawal bawal bawal bawal TV ci kaw ci kanam ci Sarr bu sëñ Mansour ñoom ñëpp woon na ma daal wax baaxul téléphone sa baaram gi mu teg Baboy maa ngi lay nuyu di la ziar. sama sœur sama xarit sama mbokk maa ngi lay nuyu di la fay di la ziar. mi salminiima. mi salminoo bandiraɓe halpulaar weltima mbaɗɗa e tampere jaam tan mawɗum e nguleeki e eh, jaam tan mawɗumlahi jooɗo jamono alhamdulillah mbiɗa e jaam jaam tan mawɗum alhamdulillah tey ñu fekk la sa kër rakk ñu fekkati la fi sax la ñuy wax ndax du ñëggulee fekkee woon nañ ko daaw di ñaan yàlla fekkee ko ay at yu bëree bëri bëri bëri macha allah safar gi comme ni ngeen ko waxee woon daaw da ngeen ne woon da ne a ñaan yàlla mu yokk mm-hmm. te ren yokku na nan ngeen di waajale safar sant yàlla yent bi ak suñu tubaab te xam ne àdduna moom loo ñaan rek mm-hmm. moom defal la ko boo amee fulla ak fayda rek gëm li nga gëm boo ko gëmee te ki àndal muy xaadim rasul amul tànk ginnaaw tànk kanam la te ñun as ndom na suñu tubaab suñu tubaab kon safar bi ren ñu ngi si commencé bisimilah rahmaani rahim ñu koy fas yéene commencé suba xamaguñu nag fan lay yem ñu ngi daal di def rek ba fu ko sunu borom yemee nañ ñeema dem. Touba Fakala macha allah nag yi yokk na. macha allah sant suñu ah, léegi nag euh, daaw juróomi fan la woon. ne woon na mun na am mu delloowaat ko ci juróomi fan yi mun na am mu romb ko. mu romb ko waaw lan ngeen programme. waaw loolu daal moom la ñu xalaatagum moom daal mun na romb juróomi fan yi mun na yem si juróomi fan yi waaw ñu ngi xool daal moom daal ñu ko ndongo sëñ Touba yi bëggee rek noonu lañ ko defee. Mm-hmm. waaw si doolee sëñ Touba. boo may a yaatalal sa digganteeg loo sëñ Tuubaa rek kese loolu rek laa mën a parce que am na li xam boo ci nekkee di waxaat sax day doy waar mais sëñ Tuubaa moo la boole rawatina na léegi toll nañ fi xam dem na ba suñu njaboot yi suñu lépp jaxasoo nañu kon daanaka léegi ñuy wax rek sëñ Tuubaa fu njabootam nekk fu ne dana leen boole ñu bokk nekk benn kon loolu moom lu ñu weesoo leneen lañuy wax dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla fal cat gën ñu may doole bu nu ñu mënee liggéeyal Xaadim Rasuul ndax ñun ñu kenn ku dul Serigne tubaa te nit foo munti ne da nga war a góor góorlu ba nu ràññee la fa. nit dangay am foo féete nit da ngay am foo wéeru te ñun nag ci Serigne Touba nañ man nag Serigne Touba mu ngi ma jox Serigne Mouhamadou Abib Mbacke doomu Serigne Abdou Borom dërëm waaw kooku la ma Serigne dénk ndax mooy sama xalifa mooy sama Serigne di ñaanal nag xalifa yëpp di ñaanal xalifa murit yàlla gudd fanam ak moroomi xalifa Tiijaan Laay ña seen xaadar di ñaanal Sénégal gépp di ñaanal njiit réew mi tamit Covid bii nekk ci dëkk bi yàlla na ko yàlla dindi di ñaanal Abdoulaye Diouf mi nga xam ne tamit moom mooy sama ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw ba Covid bii mu dindi génne jàmm ak salaam ci Sénégal jàmm ak salaam ak mbooloom jullit ak dëkk yëpp di ñaanal doomu Sénégal yi nekk bitim réew yëpp ak taalibe yi ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm Covid bi yàlla na fa jóge kenn ku nekk delluwaat sa liggéey. ñu màggali ba ñëw mu doon zéro cas. waaw mu doon zéro cas te sëñ Bamba mën na ko borom bis bi attan na lu ne. Mhm. waaw. yàlla na yàlla na ko yàlla def. amiin ci barke sëñ Tuubaa. chauffeur yi loo di wax ñoom it. ñu daw nànk rek ànd ak dal ànd ak keey gis nga dañuy wax ni dëkk dafa dëgër waaye bésub sëñ Tuubaa bu jotee doo yëg dëgëraay bi ndax xéwal gu fu ne lay jógee kon boog nañu sant rek ñaan chauffeur si ñu daw nànk ndax boroom tuubaa bu lépp lu mu doon def ci dal ak teey la ko defee ba am lu mu am kon boog ku koy fekki da nga tey jàng waaw respecté ñi ngeen yëpp ba ñu xuloo ba xeex dinañ def nombre lu nguur gi wax mhm. ngeen def ko lu porte parole wax tuuba na ñu dexal leen noonu ca dëkk ba tamit ànd ak yar ak teggin waaw man moom maa ngi kër sëñ Modou Abib Mbacke sama sëriñ ca wetam Baboy dëgg la sax waxi safar gi la ñuy wax mais dafa am loo xam ne mënut a ñàkk. Mhm. muy Gris Bordeaux Balla Gaye de tey bi ngeen nekkee di waajal seen combat. Mhm. ngeen joxe seen kàddu na Balla Gaye ne nit kàddoom la am te ñoom joxe nañ seen kàddu Gris Bordeaux moom jot na avance après ngeen dégg combat bi yàqu na Gris day delloo avance loolu nan la def ci yow en tant que grand frère. non non xam nga lu am solo àdduna lu nekkul wërsëg kenn mënu ko lekk gis nga doomu aadama da ngay gëm yàlla xam ni balaa ngaa judd. sunu borom jox na la li nga war a am yëpp xanaa xamoon loolu boo ko xamee doo iñaan doo yeneen nit lu bon. parce que kenn ku nekk luy sa wërsëg nga war a lekk gis nga combat bi bu neexeente Sëñ Tuubaa dana am. Euh, ndax Balla am na kilifa am na ki ko yor kilifaam mooy Aziz Ndiaye te Aziz ku ko xam xam ne dox suñu ñàkk fay waaw te Gaston it suñu papa la man yàlla boole na ma suma papa la suma xarit la démb tey dooguñu boobu ay Kousane Marina ay doom yu bëri ci sama loxo yàlla laa jox te respect laa ko jox ngir boo dóor sama rakk la nit ku baax la loolu yàgg na ci làmb coowu làmb yàgg na mais loolu yëpp bu neexee yante bi lépp dana sotti nekk si jàmm ndaxte mbëri ñu bëri mooy seen avantage parce que boo toogee at bëri woo sa âge ngi dem te nit nag boo ci tolloo dangay ngay liggéey dem seen te xam naa ne mbëri fanan toll dañuy liggéey dem seen waaw isalaam merci beaucoup jërëjëf merci